Assalamualaikum wa rahmatullah patriote cher patriote maa ngi len di nuyu bu baax di len siaré di len jox sen seen way ma ngi wax El malik Ndiaye ne ko pelante bi nga wax ne journal bi la fenal pelante nga ko man de d'accord na ci man de wax deug yalla d'accord na ci 100 parce que wuñu waruñoo sétat ay ay ay journaliste ñu yor seen kayit di xey di ci bind ay fen di xey suba ba ngon de ngeen ami njabot ñu yor parti di liggéey ñu bëgg yaq suñu liggéey loolu nag ginnaaw bu ngeen ko démenti ba pare da dem yóbbu leen ci yoon diffamation 10 millions yi ni fay ak cinq millions yi ni fay xaj na ci parti bi xaj na ci ñi nga xamante si nii chaque jour ñooy taxaw di jàmmaarloo ak ñoom man dama bëgg ñu pelante leen loolu nga wax ne pel déposé nga pelante maa ngi la ci apprécier di la ci tàccu bu baax a baax parce que dafa am loo xam ne dafa yomb sëñ bi yor sa ab journal foo xëyee di xool loo yàqal gouvernement bi di bind di sos di continuer su yàggee day dem a dem ba nga xam ne day dugg ci bopp sénégalais te ñun mënuñoo dëkk ci chaque jour di tafi photo di tafi kii di songu day toll foo xamante si nii jot gi duñu ko may liggéey bi duñu ci bàyyi aussi kon pelante boobu nga def man maa ngi ciy d'accord cent pour cent xoola ministre de commerce li ñu ko sosal ak li ñu ko waxal di wax ne doomam la indi ca cabinet ba ñu dem ca fi ñu wax ne fa lañu ko indi gisoo fa kenn ko sant Diop xanaa doom doom ak baay war sant doom ak baay xanaa war nañoo bokk bokk sant maa ngi lay encouragé ci pelante boobu nga def bu ci arrière maa ngi koy digal tous les DG di ko digal tous les ministres ku ci benn journaliste bindal loo xamante si nii lu dëgg ginnaaw bi ñu ko démenti ba pare yóbbu leen ci yoon parce que loolu mooy dëgg bu fekkente ne xaalis bañ leen di amande yéen mënoo leen ko lekk bu ngeen ñëwee ngeen jox ko ñi ñi ñi ñi nekk ci parti bi te loru ji te sonn lool te soxla ko mooy ñi nga xamante si ni faatu leneen ci ak ñi nga xamante si ni dem nañ ci kaso ñàkk seen liggéey ak ñeneen ak ñeneen ci parti bi ñoo xam ne dañ ko yittewoo waaye sëñ bi dafa am loo xam ne mënta continuer état lañ yor état bi ñu yor dañuy liggéey pour suñ crédibilité waaye dañuy liggéey pour sénégalais yi gis résultat bu ñu nangu benn journal buy xëy di fen bon asalaamaaleykum wa rahmatullah patriote cher patriote maa ngi leen di nuyu bu baax